moo ngi noonu vidéo tey bi nak dinañ addu jëm ci poste bi Juan Branco bindon diabolisation commencé am ñuy wax que ne nag ki di président Bassirou Diomaye Diakhar Fay lay waxal surtout dem gi nga xamne dem lako France dafa melni daf see am ni nga xamne mo di déception dinañ ci ñew daal di si addu léral ko ba mu lér nañ waye tamit pa yi nga xamne tamit gouvernement bi ñang koy tek premier ministre Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Diakhar Fay mu nek lu ama am solo ci 3 mois yo xamne man nañ ne mësula am si Sénégal dund gi wàññi gi nga xam ne nag wàññi nañ ko loolu lépp dinañ si ñëw ak ay révélation yu ama am solo te pertinente comme ni ñu koy faral di defee ak ay jàngat yu ama am solo ñaa ngeen jëf. waaw mooy li fi président Bassirou Diomaye Faye réalisé amul benn président bu ko mës a réalisé ci histoire Afrique Afrique daal la wax de Afrique waxuma la Sénégal Afrique continentale amul benn président bu mës a ñëw xam le 2 avril président Bassirou Diomaye Faye bi ñu soo a prêter serment am na benn ministre booy boo xamante ne bi ñu ko interviewé xam lu mu doon wax ñu ngi xool nu ñuy jëm a fexe ba fay salaire yi nu ñuy jëm a fexe ba fay saleer mais actuellement nii nii fay nañ salaire liggéeykat yi yaa ngi dégg ba fay ay bor bor yoo xam ne état bi du ko ameloon médecin yi fajkat yi laa la ware ba fay bor boo xam ne état bi du ko ameloon baykat yi ba pare ba fay bor eh, ki li nga xam mom lañ daan jox étudiant té ñu togon ay weeri weer jotuñu jotuñu seen i seen bourse état bi fay ko ba wiss le ya nga dégg ba pare daal di wañi dund bi manam mu nekk lu lu lu incroyable manam lu miracle bo xamante ha ah, heure bi bu doona yeen dëkk yi sérieux lool la ñi di lool la ñi di débat quoi mais ñu bëgg ñoo xëc man yeen débat yi soufey yi dootuma ci fekk ci kenn man moom léegi ma wax dëgg yàlla comme que xeex naa ba jël pouvoir bi na raa yi jub doxal soo ma bëggee xëcc mel ni kuy ci débat boo xam ne kuy opposé wu moo koy def wax ca dëgg-dëgg na duma la ci fekk rek waaw bataille de psychologique yooyu noonu sëñ bi man dépassé naa ko parce que léeg-léeg gis koo xam ni maanaam projet bi lay défendre mais gars yi buñ ko bëggee xëcc dañ na dañ naan dañ naan ko affaire u Adji bi Mame Mbaye Niang affaire Adji Sarr man xëcc na si loo xamante ne débat boo xamante ne weesu na ay ati at ginnaaw naa waa yéen a fi waxoon ne ku dee sa yaay juraat ma waxu dof yoo xamante ne sa waay amul bopp amul génn boo ko defee nga nekk fa di langar langar di debaa ñoom si loolu te ba pare ba pare na au même temps yaa ngi bàyyi priorité ah au même temps yaa ngi bàyyi priorité xoolal tabaski bi ñu nekk nii xoolal tabaski bi ñu nekk nii xarum tabaski ni mu yombee. mo gëna a yomb deux mille 2022, trois gën 2021. yomb deux mille yomb deux ren gi xarum tabaski ni mu yombé ñun xaram ni ñu jënd ren gi mo gëna ngand fuf biñu jënd jëndoon daw te biñu jënd ren gi moo moko gëna bax parce que xaru yar la xaru yar bi biñu jënd ren gi mo gëna bax biñu jënd ñu daw ba paré gën ko ngand te moko gëna moins cher ah grip pass gi doon jar 9000 ñu wañu ko ba 5000 Sénégal huit cent mille tedd de mouton la daan commandé ren yi ñu yokk ci treize mille mooy huit cent treize mille yu teg boole wuñ ci xar yar yi nga xam ne ci kër yi lañ koy ci kër yi lañ koy kiiyee ah état bi commencé teg ay projets ngande yoo xamante ni ñuy taxaw fi di ñu amer de naan ay loxo ci poos yi kenn xamut waxu dof yooyu noonu. lu ci nit gars yi gars yi da ngay réew xam nga nos amis de maanaam car car politique léegi moo changé. yëf dafa changé te dañ koo nangu te bàyyi xel nag loolu mooy wax jëkkat yàlla xam na ko yëf dafa changé dafa changé a <laughs> de sérieusement parce que xoolal maanaam lii dawul suñu yaram yàlla xam na ko kon Ranko bu xëyoon suba yi tamit nangootuñoo défendre ban njëriñ la ñuy amal yaa ngi comprendre l'essentiel nous on on va faire ce que nous avons à faire li ñu warloog Sénégalais yi daañu ko def bu soobee yàlla voilà léegi nag ñoom nañ changé tactique euh, politique bi léegi débat politique bi c'est pas maanaam da ngay contredire parce que nangam ak nangam ba ci vaar yi ñuy def nii tànc naa fi benn boy barki démb ci benn groupe. dafa ñëw naam Ousmane Sonko mo waxon man ko Ousmane Sonko ba mu doon wax mu daggal ma premier vidéo bo xam Ousmane Sonko 2019 la doon wax mu daal ñoo ne ak lu ñu wax 2021 man ko dama nga lire programme bu 2021 bi bokkut affaire bi à chaque fois da ngay réadapté manam ñoom nak réadaptation boobu non lañ miinu ci ab discours politique dañu yaakaar nit ki lam wax rek moom moy alors que nit ki à chaque fois affaire bi day am évolution mais ñoom loolu lañ comprendre nak yalla na yalla dimbali te dama leen jaaw inshallah allah sëñ maa ngi lay siyaat naka ñu jàmm non ñoom xam nañ ko ina saaf gisee xaye xam nañ ne carrément Bassirou Diomaye Faye li mu liggéey amul benn président bu ko fi jot a def mais dañ koy camoufler dañ koy camoufler duñ ci nangoo yéey yàbbi xam nga ñoom ci lan lañ ne yéen a waxoon lii yéen a waxoon laa gis ngeen amuñu problème bu Bassirou Diomaye Faye wala Ousmane Sonko moo waxoon nangam problème bi ñu am mooy est-ce que la ñu wax daañ ko defam duñ ko def te tànk yi nga xam ne moom la ñuy doxee won nañu ne ko carrément lii nga xam ne moom la ñu yellante woon ak yéen danañ leen ko defaree incha allah coow li loolu kese na woon de ñoom parce que am naa sama benn xarit xam ne affaire la yàlla xam ne bu ma waxtaan moom dafa quoi yéen parce que Diomaye Faye moo waxoon lii waxatul lii ah léegi xool ko léegi ak nangam man ko la waxoon ak nangam la waxoon parce nañ li bëgg a wax xam nañ bu baax li mu bëgg wax ñun ci suñu jëm bopp est ce que maanaam tey dana dem ba dëggal boppam face ak ni nga ko xam ne moom la ko doon waxee waaw dëggal boppam ne carrément la te dëggal boppam boobu ne ci loolu la ne yéen nga l'essentiel mooy est ce que maanaam dana nangoo dem jusqu'au bout koy loolu ngeen nangoo loolu ngeen waroon wax waaye ñun amuñu problème ba si jooyee fa dana defam duñ def loolu la nag moo tax gars yi <laughs> da nga leen di comprendre moo tax man léegi sonatuma ci yàlla xam na ko billaahi wala ku fi bëgg a dugal ak diw ma waxoon nangam ak yaawee di woo nag man sama jëm bopp dama naan na carrément comme ku mu fee déglu lam la ca la ma doon noonu woon na waxoon ak nangam ak nangam rek parce que débat yu suufee yi moom wax dëgg yàlla on en a marre quoi sérieusement. waaye sëñ si arab goro de la république Mansour Faye Mansour Mansour Covid 19 Mansour saako ceeb mais Mansour Faye nekkoon na fi ministre des transports ñaata ay tabaski ñoom ñoo fi jot a jaar te Mansour Faye mës ta jàkkaarloog sénégalais yi ne jàkkaarloog wi yi diiranteeg ñoom mbagg ne né li ngeen di def jaadu té tegul ci yoon la Mansour fay réussir ci juroomi at wala bok durant tout la période bi nga xamné mom la fi nékkon ministère des transports hein hmm? mom la El malik jaay ñew ñëw daal di daal di koy régler en deux jours deux jours sans la wax parce que bo xolé dafa dem dafa njëkkoon dem bo marché mbaa doon leen yok ñu ne noonoo duñ yok après quelques temps après euh bi tabaski déssé deux jours wala 3 jours fekk gars affaire anarchie bi le lendemain samedi la len tagal ay Dakar dem dik nee la len ku bëgg dem nga dem manam ni dama sam problème man sama jëm bop xana ku jàngut lañu waxal waye débat naa fi nit mu nan ma sen leader andi woon affaire ci 94 milliards ma ne ko da doon décision de justice affaire 94 milliards da ci juge ba wax bu ñu bëggee mën ko détailler parce que man lola jang on fait des commentaires d'arrêt de justice yaa ngi dégg donc loolu mën nañ koo commandé affaire Adji Sarr xanaa ko jàngut waaye man yàlla may na ma jàng naa as am naa lu ma ci xam ci wàllum yoon te guddee ab viol rek lu koy lu koy génne certificat médical la moom moo koy élucidé à part certificat médical dafa am ñeneen ñaar yoo xamante ne moom mooy loolu mooy matérialité des faits imputabilité des faits te matérialité des faits boobu noonu certificat médical moom moo koy définir certificat médical bu la médecin bi ne y a pas de lésion nangam wala boog absence de nangam wala boog quel que soit motivation bu bind ci boobu noonu bu loolu rek day boucler élément boobu noonu tant que y a pas de matérialité dans un muy wane ne que carrément am na ah mënoo am kenn koo koy imputé donc côté boobu moom rek nañ ko ci man parce que sama nijaay fii la ñëwoon expliqué naa ko benn jour topp ma waaw yéen na ngeen yéen xoolal seen buy wax day wax a wax a wax a wax a ba pare mu wax ma ne ko xoolal barki Serigne Touba Mbacke laa de ma ne ko Abdoulaye na ngay waxal Ousmane Sonko laa wax de moom laay faral bu ilaa yoomi di si bu falu 2024 nii la ko doon waxee parce que man daf ma doy maanaam affaire ba ci affaire 94 milliards yeeg 29 milliards pour Dakar xanaa ku jàngul lañ koy waxal parce que man yàgg na affaire débat ak nit mu naan ma ay 29 milliards saa waay dañ ko nangam ak saa waay dañ ko wax keneen ci koo xamante ne jàngul droit mais koo xamante ne wala ab juriste am na ci loo xamante ne genre débat yoo xam ne mënoo ko cee dugal te yàgg naa débat fii ak nit te sànq gis naa ko mu daal di bind benn affaire di commentaire euh, ci kiiw Bassirou Diomaye Faye bi ak kii bi laa la wax de du ma tudd turam <laughs> mais xa leneen keneen ngay waxal ci domaine boobu di ko bluffé pas koo xamante ne ku ni man la moom moo dëgg yàlla moo tax ñun dañ noppalu te dimbali seen bopp te ñu xam ne carrément opposition jamono ji du lenn mo ko def lu argument parce que Ousmane Sonko lepp lu mu mës wax ak sénégalais da ko tek ci ay base yu lèr mais ñom ci lu ñu bëgg nek moy mooy waxon a waxon yéen ñun amuñu problème Ousmane Sonko lam waxon dédé ndax da dana ko maintenir téye ko ba mu dëgër mais problème mo management ak wala coaching rek wala bok lay exécuter plan yooyu ñu non non amuñu problème bok ñi lay xam lolu wax dëgg contana ci lolu de kontaan ci lolu parce que Ousmane Sonko mom man ba ma ko dalee déglu ba légui suma ko dégg mu ne danaa dem France duma dem France musuma koo dégg Ousmane Sonko lépp lu mu doon wax ci da ko doon teg ci mode de partenariat yi nga xam ne moom la France di nuyee ak pays africain ak ni mu leen di asphyxier économiquement politiquement bu am sañ-sañu sax dem buy imposer ay dirigeants naan leen yéen a war a falu ci seen réew ngir man ma mën a dund Ousmane Sonko loolu la doon xeex mais malheureusement nag nos amis de l'autre côté maanaam ñii nañu façon discours yooyu noonu moo à chaque fois maanaam sama nijaay bi loolu akay wax dafa wax ko Ousmane Sonko il est violent ma ko nit kuy wax dëgg da ngeen di wax ngeen ne dafa violent man mi bu ma la doon wax dëgg da nga naan carrément dama violent et ne sont pas habitués à cela quoi moo tax da nga di comprendre benn instant mais yàlla na yàlla defal jàmm te déggal leen ko te déggal leen may leen ab dégg um xolu muñ te xam nañ ñun dañoo décomplexé ñoom ñoo complexé mais ñun on est yàlla xam na ko man aw san ma fu absolument ngi di tout mara di tok ak tuba la allah wala ba bok ak mom ben barab mu def lu dul yoon ba dem ne ko carrément li ngay def di yoon mais ñom ci seen jëm xeyna naa par ah bon monsieur <laughs> nangam nangam non nga dépassé lool respect rek ala la respect respect comme respect barki dem du France 24 dafa nekk carrément au Sénégal Bassirou Diomaye Faye ñi tondu ko nekk au oh, français Emmanuel Macron loolu kese la il n'obtiendra de nous que ce qu'il mérite lu lu ñu lu ñuy am ci ñun lu ñu mérité kese lañ mën a am bu ñu bu ñu joxee respect ñu jox leen respect bu ñu ko joxee mu néew ñu jox leen ko mu gën a néew bu ñu joxee nag respect bu mat sëkk ñu jox leen respect bu mat sëkk waaye bu ñuy jaayee préwandé e, ñoom français yi ñu wër leen nekk carrément ñu ñoo leen gën a réew loolu képp la.